voilà peut-être ay si moom lay yem gëm naa dina tëj caabi sànni moo gën a wóote alors moom li nga xam ne nii moom tamit mu ngi def coow bu rëy rëy rëy keroog ñoo toog fii di ko waxtaanee euh, si plateau bi mooy lii di xaru Adji Sarr xaru bi nga xam ne nii ñoo koy dégg ñi naan dëgg ñi naan du dëgg ñi naan ay rumeur kese la waaye am ay audio yi nga xam ne tamit génn na lu si mel ni audio Gabriel Kane bi nga xam ne nii euh, fu mu toll nii moo ngi feu et flamme euh, je crois yoroon naa ko su ma ko fàttewulee wax na fa li nga xam ne lu mel ni xeme kii di Adji Sarr peut ni xaw ko déglu tuuti Ousmane daal di ñëwaat. waxoon tu m'emmerdes à la seet siwuma la boo lakkoon bañ lay suul sax jaale siwuma la. dégg nga munoo téye nit ñi en haleine pendant deux ans saa yoo banqué bëgg coow bëgg yëngal réew mi rek ne waaw damay xaru damay xaru xarul et tu nous emmerdes à la fin tu es qui tu pris pour qui mais merde quoi xool. boo bëggee ma wax la nan la ñuy xaru kuy xaru du lakk matlaawam kuy xaru da ngay jël essence nga taal sa bopp wala loolu gaawul nga naan ay comprimé nga tëdd nga xaru ci jàmm ak salaam quand tu as emmerdé tout un peuple tu peux mourir en paix. Va te faire foutre, tu nous emmerdes à la fin. Tu nous emmerdes. On est dans un pays où les gens ont faim, les gens ont des problèmes, les gens ont besoin de bosser, les gens meurent tous les jours. Tu n'es pas la priorité de ce pays et tu n'es pas la priorité des gens. Donc tu te fous en l'air et tu nous rends un service républicain. Tu vas te faire foutre. Te xoolal foo ma woo ma wuyu la fa. man du ma yambar yi du ma ñii xam nga li ma la wax foo ma woo ma wuyu la fa atu silence nag ku ko def dafa am lu mu la téye taxaw ne nekk lii nag bu la neexee nga distribuer ko de woowu la atu yàlla seetuma ma la atu yàlla ñëpp bëgg maa mbamb tue-toi et rends-nous service merde à la fin chaque jour nit ñi dee ci dëkk bi da gën ñu ne ci armeer yi ñu gën a gore ñu gën a baax ñu la gën a diñ nekk ci armeer yi nga xaru nga noppal ñu doomu cottu ndayam bi. salaam. wóob wóob. laa ko bëggoon posé na benn des na beneen ana beneen bi non bàyyi bi ba pare bi beneen bi aadama moo ko def doomu cottu doomu na de xam nga lu ma jaaxal loolu laa bëggoon dégg xam nga ma jaaxal mm-hmm. aji saar mm-hmm. moo tas vid audio bi ndax ah. daf ko ni dafa mel ni léegi xam ma jaaxal mm-hmm. Gabriel Kane moo wax lii Gabriel Kane bu nekkoon doomu ndey kii du Adji di ko défendre fu nekk. déedéet nel Gabriel Kane Adji Sarr numéro 2. ah kon boo Gabriel Kane Adji Sarr numéro 2. moo wax li hmm. parce que wax ma sa xarit ma wax la ki nga doon. mais est-ce que ay xarit lañu woon. waaw. ok <laughs> kon ay xarit. waaw tax ma ne ay xarit leen. Hmm. Adji Sarr guute gu mu dugg. Hmm. ba mu ci dugg ba mu àgg fii nii nii nii nii nii nii nii Gabriel Kane mii génnu ci li ndax moo ko ci doon ànd ak moom. waaw gis naa muy def nga koy défendre. yee moo ci doon ànd moom. Mhm. kon moom na na moom moom wax Adji Sarr na ko tourné ci boppam ñoo yem. ñoo yem man. maa ne ñoo yem. peut-être mun nga wax ni ñoo yem parce que ñoom ñoo doon ànd à fois ñoom ñaar moo doon toog ci télé yi di défendre kii di Adji Sarr naan Adji Sarr dafa am ay yeeq ay ay comme ça ay droit mi nga xam ne nii euh, maanaam da ko war a am maintenant demoon nañ sax ba jàpp ne si biir euh, kaddu Gabriel Kane kaddu gabu euh, kaddu kii di Gabriel Kane que Adji Sarr sax maanaam moom lañ tooñ des fois bu doon wax loolu ngay jàpp maintenant est-ce que dafa dem ba xam ne dëgg bi kat fu mu ko yaakaaroon nekk fa moo tax mu génnaat moo tax mu bàyyi kii di Adji Sarr parce que si biir audio bi yaa ngi dégg mu naan euh, nit ku noppi ça veut dire que dénk denc ay secret yi nga xam ne nii bis bu ko waxee yow nga yàqule est-ce que maanaam dafa am lu mu xam li nga xam ne ni Sénégal xamuñu ko wala lan la. war na ko xam war na ko xam de. Mm-hmm. ku seen maanaam maanaam maanaam ku sa yaakaar tas. man maa ne Gabriel Kane lu wax Adji Sarr moom la rek. ndax ñoom ñaar kiif kiif ndax ba ba muy métti ñëpp naan aj Sarr di tëbak daal ñoom ñaar ñoo ko àndee woon kon moom amut lu muy wax Adji Sarr amu ko. non ma wax naa am am déedéet sérieusement amul lu muy wax dibiteri du peuple. mais mais nit ki. moom amul lu muy wax dibiteri du peuple. waaw des fois Mansa mis xeer dibi. waaw léegi yow tey jii munoo dem ba. <laughs> dafa nànk rek dafa nànk rek yow tey jii nii munoo dem di jëndi dibi fenn. waaw Rachid euh, Rachid di jaay dibi. nga toog saa ne Rachid kat dibam neexuma xaama dem si Momo moom di dibam moom gën a. waa léegi est-ce que du kon dañ doon xëccoo benn dibi. <laughs> waaw loolu mën naa am ñoo xëccoo dibi <laughs> ji Rachid de moom mën nañ ko xëccoo. <laughs> moom sans eau la de. sans eau la. Rachid sans dëgër Rachid mooy góor gu dëgër de. bëri loo ko xam nangu. Ah, waaw mooy góor gu xam nga man man man looloo ma yëm quoi. man Gabriel Kane miy wax ci Adji Sarr ba ni moom moo ko saaga nii. waaw balaa ba ba da ko wi moom lépp lu munti wax maanaam man bu dee man laa wax sama gis-gis. Mhm. maa lijjantewul Gabriel kan ay waxam mook Adji Sarr six say neuf kiif kiif ku jàpp kii jàppal kii ku ñori kii ñoril kii ku wax ci kii waxal kii. non man di nga ko d' nag boo ko d' accordul loolu yow loolu yoolu moo parce que loolu ndax ba muy metti dëgg. ñu jóg muy ànd ak moom fu ne taxaw ci télé yi di wax lu ko saf taxaw ci internet bi di wax lu ko saf di défendre. Mm-hmm. moom mu ne la deux ans doon avocat am. dem na ba ay saa buy dem audience sax moom lay àndal tey mu nekk ne moom moo gën a xarul ak bëggee xaru li yoon bi ak yoon bi ci gën yoon bi ci gën fii mu àgg nii tey génnewu ko ci moom Gabriel Kane. dafa dugalee Adji dañ ko war a dugal. kon jàpp ni maanaam Adji Sarr mu nekkee yëpp. Gabriel Kane am na si part de responsabilité ah, bu mag bu mag laa wax waxuma bu ndaw bu mag mhm. fu ñu nee coppit aji moom dañ koo fa war ni coppit moom foo aji xaroo une heure moom deux heures bu goree xaru mais est-ce que tamit mënuñu wax ne ça veut dire kii di Gabriel Kane dafa dem ba xam ne fi mu jëm ni kat ndox nekk fa te moom lu mu noonu yëpp si Adji Sarr lépp du dëgg moo tax mu delluwaat ginnaaw parce que nit ki am nga droit def loolu rëccu day fekk jëf wees mais juum am na. ju nit ku dul juum. amul Youssou Ndour woy na rëpp neef rek la woyut. est-ce que dafa. rek la woyut waaye woy na lépp Youssou. Ah. Ah, ba ba mais <laughs> euh, kii dama wax Adji Sarr. waaw ma nangu naa nit mu dem ba xam ne li ma nekkoon kat baaxul ma delluwaat ginnaaw. fii amul dellu ginnaaw de yërëmuñ fi ndey kan astafurlah. amul dellu gannaaw de. <laughs> xol lay waxee xol. yërëmuñ fi kenn parce que mu munuñ dem. yow ñaata sénégalais dee. Mhm. ñaata sénégalais dee ci lii. Mhm. surtout loolu. non nañu waxante dëgg. non sérieusement yow fi lii xoolal suñ dëkk bi affaire de coowul Adji Sarr lu mu boulfe lu mu Sénégal yëpp kenn xamul xalaatal coowu Adji Sarr ni mu def Sénégal. xalaatal coow aji saar nim nim lëmbee Sénégal lëmbe àdduna coow aji sar num def suñ dëkk mm-hmm. nga dem ba këtt ni jox nu xaw ma am nga ci lu leer xaw ma amoo lu ci leer nga taxaw naan ko on est fatigué deux ans de boo bëggee xaalis boo bëggee nga mm-hmm. kon xaalis ba mu doon jël nag kon xam nga ne yow kon xaalis la daan ut waaw aja ça veut dire que le mu wax si audio biir audio bi ne ko à chaque fois boo toogee soxla xaalis rek ne damay xaru. voilà di ko Adji Sarr kon am na xaalis bi nga xam ne moom la doon jot. moom la daan jot nii jotatu ko. waaw léegi lan moo ko wóor tamit ne xaalis boobu Adji Sarr daan na ko jot kon da lay ni moom bu joxoon kon Adji Sarr cent mille am na ci xanaa vingt cinq mille. loolu tuy point d'interrogation la bu ñu a. non affaire buñ ko sorxo sorxo ñun duñ ay Miki Kiri Kouré defuñ taatu neen di wër ci dëkk bi de. non. dépassé nañ loolu ñu ngi jëriñoo luñ bon bon ñu jëriñoo suñu xel. Mhm. bu nu rey bu nu damm bu nu fatt ñoomi nen la affaire bi du mu lu mu jar ñu jund ko tous. yombee noonu ce que c'est le waaye waaye karma ak ak yoon beeg kër brisé ak xeer loo foo waaye karma mooy dëpp dëppuwaat. waaw ma ne kër loo ba kër brisé ay ay taag. ah, ah. ak koor geek aloo duus hmm. ak. riiru riiru tabaskeeg riiru ko lépp ci yem. amul ma dem te ñëwul duñ leen sax bàyyi xel nee naa la lu mu jar ñu jënd ko lii dañ koy topp. xëy doo bàyyi nii. waaw ñii dañoo neex. léegi dégluwaatal bi. salaamaaleykum gars yi mbokki patriote yi mbokk Sénégal. Adji saar laa coupé léegi téléphone aji saar moo ma woo téléphone mu wuyu ko mu ne ma Adama Boss Dey néegri mu ne ma ne ko ah mu ne ma Adama sonn naa Adama tay na Adama maa ngi bëgg a dee Adama kër gi ma dëkk kër gii may wax a jëw jëkkëru na mu daas exam di njaw faal moo ma ko fayal aw ma lu ma lekk aw ma lu ma naan Adama ma ne ko ah mu ne ma lan laa bëgg damaa bëgg nga dimbali ma te yàlla tax wax ak autorité yi wax ak Sénégal wax ak réew mi ñu gestu ma sonn naa lool nee na soxlawu ma xaalis soxlaatuma ma dund soxlawu dara li ma bëgg mooy ñu defal ma passeport rek génnee ma réew mi ma dem aji Sarr nee na lool kese lay ñaan ñu defar ko passeport génnee ko réew mi mu dem nekk ci ay activité mën a liggéey comme nit ñi nee na sonn na aji nee na tabaski du génn korite moromam yi dañuy fodd foo dañ koy tëj mel ne ku yor ngun a ganaar ci kaaf gi lañ koy denc di ko contrôler guddeeg bëccëg mun ta def dara aji nee na mun ta divertir vie bi muy dund nii dee sax moo ko ko gënal Adji Sarr la coupelle moo ma ko wax mbokk autorité yi mbokk Sénégal mbokk réew mi message baa ngi nii ak maintenant la question que la question que qu'on doit se mooy euh, fu mu toll nii Adji Sarr est-ce que dafa am lu ñu soxloon si moom fu mu toll nii jërëriñtul dara ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko doon gémm moo tax ñu mettre en côté wala Adji Sarr secret yi nga xam ne nii wax naan am na ko te Adji Sarr chaque fois moom la doon géere naan bis bi nga bis bu lu ma xam ne nii mu laa bëgg su ma ko amulee dinaa ko génnee est-ce que Adji loolu yëpp ay information yu fausse la woon lan la dañoo soxlawutul Adji Sarr moo tax Adji saar dund li yëpp c'est quoi le problème. Adamo moo wax. Mhm. te neen Adji Sarr moo ko woo téléphone. ah wax ko li mu koy wax yëpp. maam moom sama gëm. man xëy na gëmuma ko. non non gëm naa ko. gëm nga ko war naa sukkandikoo yow ci sa ngëm ndax yow loo gëm war naa ko mën a gëm. waaw ci benn côté. parce que la fekk ojo audio bi génn. mu ne Adji Sarr ne day xaru. liaison boobu am. léegi man luñ ci tuddee nabotage. non nee jëkkëru Nabou Dash bu njëkk ba. Mhm. fu mu toll nii moom mooy fayal aji saar lan la sekk ak Adji Sarr ba koy fayal. voilà la grande question loolu tamit question la loolu tamit est ce que duñ ko laaj Adji Sarr non pas. <laughs> pas Nabou Dash maa ngi doon bëgg Nabou Dash mais ko laaj. Nabou Dash fekkee dañ ko teg ci code di ko dóori code code mi mu jeex de. <laughs> am na ñu fa limoon de. bu code yi jeexut sax. non instant yi moom gëm naa ni lu tax mu sonn nii ça veut dire que code yi jeex moo tax mu sonn. code yi jeex na de. te code yi gars yi xam nga xam nga code daa ànd ak côtelette te côtelette saf lañ ci mhm. taamu côtelette day saf waaw côtelette boo xasee ba ah. seeñu bu mu jeex waaw ah. sànni rek moo ci des da nga jàpp ni kon fu mu toll nii mu ngi si mbalit ma te mu mënoon am passeport génn day yomb aji 2024 hmm. dañ ko war a àtte incha allah waaw bu keneen jëlee nguur gi moom li fi xewoon nii nga foog dañ ko àtte. moom dañ koy àtte. est-ce que du loolu lay daw moo tax. mu non non non moo tax bu dee da koy dawee dina noqatoo xaar ko de. <laughs> kon monsieur Dara dina toog xaar ko de. kon ba Aïssa xaar rek. bi kañ raawul bu fekkee aji ndem mu ngi koy guerre boobu ba léegi dina toog ger guerre bi. mais am na ñu ko doon jàppale. vraiment foo ci ñoom. seede am na ñu ko na ñu nga xam ni ñoom ñoo ko doon jàppale am na ñoo xam ne ni ay maître El Hadj am ñu nga xam ne ñu bëri ñoo ko doon jàppale anañu déglul ah, dégg naa sànq danga kenn du dañ koy waaj xaru dañ koy préparé man dama lay jox ngir bu baax baax pour nga def ñi ay bandi lañ dangay doon bandi tuuti nag yow bandi gi mooy yàq nañ sa vie fexe ba yàq seen vie munoo live munoo dem ci télé jël sa téléphone nga def si vidéo enregistré dëgg fin ba yëpp lu ma demee soo ko defee ña la doon ruux ak ña fayoon ak ña daan joxe xaalis ñëpp ak ña la tëddee am na si solo ndax yaa Ahmed Khalifa Niass mi ngi si soo ko bàyyi ba ay une heure du matin deux ko si say paas soo ko tasaaree si paas yi Facebook TikTok Instagram bul bàyyi fenn boo paree nga jël sa téléphone wal ba mel ni dégg-dégg nga denc asib si sa wet un asib. boo ko defee après nga daal koy naan moom boo ko naanee bu neexee yàlla bàq butit moom dootoo ko dese yamal xëyaam nga yeewu jee noonu moo gën ndax urub ji xam naa ne mi ngi nekk sam xel ba tey waaye mënutoo dem xam nañ ne sa moo moo ko lay yóbbu nga sambal leen live dimanche munoo dem génneel sa xel dee nga saar dee moom bul dee si lakk ndax yow doo nitu àjjana waaw fexeel ba naan asib boobu moo gën dina sedd du mett dégg nga man pourtant est ce solution la ko jox de ah eh, waaw. je suis maa la tegal di maa jël sama téléphone tegal. waaw ma ko tegal kay. voilà. kon man damay tegal yëpp nekk nga boo dee. voilà kon man mën naa assumer. ah Adji Sarr moom day ñëw ni génn Sénégal. loolu la bëgg. Adji Sarr ñun bu nu fooyee. ñun bu nu fooyee. <laughs> su ñeneen duñ ko fooyee ba pare moom mu ñëw ne ñun lay fooyee ah Aïssa loolu duñ ñu fooyee maanaam moom moo la gën a xam ni du buuse yotaa puut du fa àgg puut sax sori na kër mbay fa du fa àgg parce que moom instant yi pour kër maanaam kër gu mu nekk mu utub sax génn mais maintenant yow la fekk man dafa am luy luus man génn mënul génn ñim bëgg a woo mu ngi leen di woo ñi muy bëgg a gis mu ngi leen di bëgg a gis ñi koy seet si ñu ngi koy seet si. Hmm. ah ñi muy seeti mu ngi leen di seeti nee naa la code boo gis nga boo juumee bañ teg la ci code ba code cotee la ba jeexal say code sànni rek say code sàppi sànni côtelette hmm. dañ koy sànni boo deseetul dara da ngay sàppi doo too saf dañ lay sànni hmm. naturellement léegi nag ñun duñ ñu rey déggoo ma wax la sànq ci samay biir wax ñaata nit ñoo dee ci problème bii ñii ñàkk ci seeni loxo ñii ñàkk ci seeni bakkan ñii ñu tëj leen ci ñii indi ci ay problème nga gis yaakaaru lëmb Sénégal jeune yëpp yaakaar ko Ousmane Sonko lu ne dal ko ci. wallaay. Hmm? lu tax mu dem kaso lu ne lu ne lu ne lu ne léegi nga foog ni nag après un bonjour nga ñëw ni ah. Eh, ma dimbali dama sonn sama ndigal li day metti sama côté tànk yi sama kiwis bi dina metti day metti faaw metti da ngay toog xaar. ñam da ñam. ñafal ñafal de kon boog aji euh, ñamal rek peut-être incha allah lii yëpp dina jeex incha allah euh, mais en tout cas daal fu mu toll nii moom coow li bëri na trop trop si aji saar euh, aji saar demal aji ñëwal aji saar ne day xaru aji saar ne xaruwul donc fu mu toll nii nag Sénégal yi yëpp tamit comme ni ko Ousmane waxee ñu bëri bëgg nañ maanaam li xam ne moom moo nekk justice daal di génnaa si waaye soxna si dafa wax lu am solo maanaam si audio bi nee na ko defal say vidéo wax dëgg bi yëpp te man gëm naa ne aji saar kenn rek moo ko mën a sobee fu mu toll nii Mm-hmm. muy sénégalais yi. ñaan sénégalais dafa naag maa ngi ñëw. kenn rek moo mën a sauver muy sénégalais yi. Mm. te pour sénégalais sauver ko il faut que maanaam mu wax dëgg bi. gis nga bu waxee dëgg bi peut-être am na ñoo xam ne mere bu ñu ko woon. Mm-hmm. lu mu dee dee dee dee dee dina am dara li nga xam ne li mun na si wàññeeku. parce que yow yow yow doo mus a baal Adji Sarr as ne day baal Adji Sarr moom du mus a baal Adji Sarr donc man gëm naa ne tey jii nii Adji bu génnoon wax lépp li nga xam ne nii moo nekk dëgg bi gëm naa ne dina am benn partie Sénégal yi nga xam ne nii dañ ko baal mu fekkee ne am na ñoo xam ne moom àdduna du yàgg bañ baal kii di Adji Sarr parce que ñoom jàpp nañu tey seen ay mbokk buñ gaañoo moom am na si part de responsabilité donc pourquoi bu demee ba xam ne sonn bu demee ba xam ne moom tabaski moo tax génnatul euh, Korité jot Korité day jot génnatul fu mu toll nii amul sax lu mu fayee maanaam loca location donc ça veut dire que Adji Sarr sonn bi nga sonn bi nga xam ne nii Sénégal yi ñoo ko mën a jàppale et pour ñu jàppale ko il faut que Séné di wax dëgg bi. léegi moom ban dëgg la. ah ne defuma ah, ne Sonko xanaa defuma dara bu fekkee mu Sonko def ko dara mu génn Sonko defuma dara bu fekkee ay dil la woon mu ni lii ay dil la woon bu fekkee dafa am ñu bokk dil bi mu ni nii ñoo bokkoo si dil bi bu fekkoon ak comme ni ko waxee ay côteletam am na côtelette bi ñu ko seeñu mu ni côtelette bi ñii ñoo ko doon seeñu fu mu toll nii ñii seeñu ñu pare jeex na sànni ah, léegi wax ma leneen man ma génn ci kaawu kooku ma sonn ci ay mbiram ak yoo xam. yow doo baal. barki Serigne Bamba baale du force di. man ci ñi bëgg ñu topp aji Sarr ci laa bokk man. mu ñëpp kay. nga naa ma lan. waaw nga foog ni ñi ci dee dee non. yéen comprendre leen sax. mu toll nii moom xam naa moom tuy bëgg na génn jël jël jël jël ndawal rek. foog ni ndawal dafa bu def dibiteri du peuple. ku jot lakkul. waaw a Diop ba léegi déggoon si histoire bi. tal na leneen moom ay parrainage tal yoonam nekkatu ci. ah tal na leneen. nga dëgg sa soxla boo soxla Sénégal ba léegi ba doon gis à chaque fois bu ne day xaw rek ñu njëkk a génn moom si lañ bokk moom Gabriel Kane Gabriel Kane moom na ko man man da bàyyi na si bi ma ko déggee dama xam ne ñooyem rek moo tax nga pare moo tax ma pare parce que ñooyem koo xamante ni saagal saagaal naa la fu ne fu ne taxaw fa di wax sonal nit ñi nit ñi bu ñu waxee muy yëpp yenn kilifa di saaga ñeen nit ñi di def lu ko neex mm-hmm. di wax mm-hmm. tey mu ne ah. moom mooy wax nii xëy na moom it lam yaakaaroon a tas rek lam foogoo ni moom it da ko ci am te amu ko ci yaa ngi tas yaakaar yu tas bëy na de mhm, yaakaar